waaye bokk yi am na yeneen wala beneen boo xam ne tuddeetuñ ko majlis waaye xadara rek lañ ko tudde moo gën a yaatu nag ndax xadara pays ku ne dana fa yóbbu lu nekk ku ne dana fa dem lu ne dem fa bu fekkee bi ma dëkk wax la nag muy majlis boo xam ne dañuy wër ka fa nekk tax faa ñëw ñëpp kum tëralal jàll ci keneen léeg-léeg mu boole ñaar ba benn téere tëralal loolu leen ko seet keneen ci raw mu toppal leen ko loolu bëreetut ci ñi ñuy fekk de rawati nag nekk ca nekk ca ba bu waxtu julli jotee mu ne fojjat jiite mbooloo ma delluwaat ca lam nekkoon loolu bëreetut kon nit ñi nañ seet bu baax a baax a baax seeni majaalis fa dem ak ña togal, gënaaw soppi ku ne tudd xadara léegi mooy pays man sax xadara ba ma ko daan dégg ca mag ña pays suñu borom ba lañ ko tudde woon waaye am nañu ko sàcc li muy xereñ xereñ am nañu ko sàcc tudde ko xadara ñoom itam ñu fay dajale ku nekk ak ñu nekk ak lu nekk diina nag waaraate ak yeete ki neex a waar nag mooy kuñ ni yeebam na jar la mag waxoon ne kañ ñu booleeloon daf ñoo jàngal bañ ñu bañ na ar mu yër mu yar na bañ na nër dolli nañ ca nag boo xam ne mën naa ànd ak ñoom ku jàng ba ne ar yaru ba ne nër faw mu yew ba ne jar ku yew nag moo neex a waar ndax dana am loolu du sañ dana xàmme lu muy ragal ak lu muy xeemeem ragal mbugalum suñu boromam ëllëg ak xeemeem payug suñu borom googu ëllëg suñu borom nag àdduna ci majalis yooyu wala majlis ba nee na yéen ñi nga xam ne gëm ngeen yàlla ak li gëm yàlla di àndal lépp bu ngeen fa dematee ci ab majlis bu leen fa yóbbaale ak rëy bu leen fa yóbbaale xel mu gàtt bu leen fa yóbbaale it ka ngeen fay fekk fu mu leen joxoñ rek ngeen jëm fa déedéet waaye nag jox leen cër ña ngeen fa dajeel ba buñ ne la sëñ bi toppal nee tuuti bul ca teg baax buñ ne te nga jóg deme ne donte nee nga ne xam xamaara bañ dale ko wax it bul ca teg baax bu dee مجلس لا بو خامن دنج فاي جوخي اي بند لا بغا واخ نك يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفصحوا في المجلس فافصحوا يفصح الله لكم واذا قيل انشذوا فانشذوا يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات كون اب جوليت ورنا ياو بمانا تان مجالس يوي نك bu weesoo bii ma jëkk a wax nga xam ne moom daara la dañ fay jàngale xam-xam di fa wan nit aw defiin wu koy dimbale ci jëflanteem ak digganteem ak moroomi jaamam ak digganteem ak boroomam fu mag di dem la boo fa masaan dem danga fa fekk mag fekk fa ndaw danga fa fekk ku bokk fu nekk sant wu ne daal laa bëgg a wax ak ku ne diwu ko jur ku nekk da ko fa fekk ñu bokk di fa taataan ci kenn walla ci ñenn ñoo xam ne lañuy ñuy dagg la def ca ñoom du weesu nu nit kiy def ba jariñu ci àdduna ak njariñ loolu buy dem àllaaxira man ko faa dawal mu fekk ko fa bàyyi ko fi it ñu di ko ko màndaa gannaaw kon boog ku ci yàlla dimbale ba mu tàmbali caa am bu muy jariñoo na fexe ba saa bu jóge mu ngoor lu bari yóbbaale ko am na ay melokaan euh, ku fi yóbbaale jikko joo xam ne gënut na ko bàyyi ci bunt bi te fas yéene jël ci jikko yi nekk ci jotaay boobee bu fekkee ka ko ka koy joxe mooy ka ko war a joxe te mat ku sëkk danaa ñëw ci xadara waye jotaay bu melni bi sallallahu alaihi wasallam dan toge ak mag ñiko wutu gënaawam moma tax di gëna wax di laaj ba xam mi ngi am batay waaw wala deet jotaay bo xamne dañ tok ba yag ñu ne waaw masala sangam mom lu ci sharia wax tambale laaj ba ca ca kaw lolou bu fekkee mi ngi am itam wut de yob fi barab masala diko laaj duñ la may sang wax dañ la ku nuyo na dem ku ñëw na topp ñeneen ñëw waaw ñeneen ñëw lu ñu fay def gannaaw kii moom gàkk na ci diine gàkk na ci ab jëflante bi diine santaane diggante mag moroomi jàmm fu muy gàggante ko bu dul foofa kon bokk majaalis yi mat nay teey bu baax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam de nee na woon ku gëm ne yàlla ku am la moo fi jiitu moo fi ñëpp dañuy dem ko fi mu neefi te du fi jóge mukk jurul kenn kenn juru ko nuréewut ak kenn dara saa boo defee ci sam xel mu rëy ba ne nii la wara mel lo lo xam la lo lo peeg la fi la tàmbalee yam fee du yalla ku ko gëmee gëm ne bis dina ñëw mu nat ji fi bu ko mbooloo dee ñëwal muy borom majlis ba kenn ku ci nekk na la yaatalal ay loxoom may la bëñ bu weex tàll xool la bët bu leer boo xam ne loo ko bëgg a laaj ci diine su fekkee nusug diine la mu mën la koo leeralal man kaana yuminu billahi wal yawmil axir fal yukrim dayfahu kooku kañuy fekki moo tax muy wax waaye kay fekkee ji nag am na wàll moom itam mooy ne kott di déglu du def yitteem ci lu dul lam fay roote fas ko yéene yóbbu jariñoo ji ko ci ñi niy jariñoo am ndox ndox liñ koy jariñoo naan tuuti la ca mu mu dunug nit ñoo ànd waaye da gis ku dem fi barab boo xam ne lii ma wax lañ fay joxe wala boog moom lañ fa war a joxe yitteem jëpp nekkul ci lu dul di filmer nit ñi moom moom jamono boobee koo koy wax moom la muy wax jëlu ko mi ngi seet ku mu war a cadré ci mbooloo mi ku mu war a jël ak ka topp ca moom ak ka yëkkati loxoom joxoñ ko boppam ngir bu génnee mu mën koo yeewi koku ak dem ci yoy majalis amul njariñ waye bokku na ci sax bokku sax ci mbañum rus deug deug dem fi barab ñu fay joxe lu am jarign lo xamna jarignam njariñam lay tambale jëm àllaaxira yitteelu ko lu may ma ngay xol kum wara filmé wala kum wara war kessé foto kese koy gis sax ci yenn jotaay yu ñuy def ci ay jumaa wala أي muxaadaraat liñ tuddee conférence di ca wax tomb yu am maanaa yoo xam ne ñi ko xamoon da leen di fàttali ñi ko xamagutoon war nga gis ko yërëb jukkeem di jàng kooku lu mu fa wuti wala ñu woote foo xam ne déglu leen ñëpp yi déglu moom mu yërëb jukkeem di napp napp di nga gis làmmiñu mi mel lu koy wax dara wala mel kurusam lu mu wuti te moo toog këram foofa dañ fay joxe te ginnaaw yurut lu mu joxe na toog ba ñu ñëw te bëggut a jël loolu sallallahu alayhi wa sallam ci njàngaleem mu yaatuma joxe na ci bind daa mat sëkk ba amul lenn lu ab jullit di soxla ku ko ca fàttali wala ku ko ca soññi te mënoo ca ne yonent bi nee na su fekkee sa gëstu xaw naa xóot tuuti